حوذني الله من الشيطان وخاد لي منافع الأوتان قد فك قبل قد بث فضلا فالضر ولا والنفع جاي بسم الإسلامي وبسم الطريقة المريدية وخليفته شيخ محمد المنتقى ابن الشيخ محمد البشير مع جميع الخلفاء في الوطن في بلادنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bunu nuyo kilifa kilifa yi khalifa khulafa yi cheikhu shuyukh yi ca penku ñepp ngi ci bir senegal yëpp ngi ci bir bunu nuyo ar raisul watan ñepp ngi ci bir temporel bi ñepp ngi ci bir spirituel ak temporel mo am ñi nek ci digënté bi wuñu diine ji fii ci réew mi ak dawla bi ñoo fi nekk ku nekkul ci diine ji yaa ngi ci dawla bi mbaa nga nekk ci diine ji nekk ci dawla bi mbaa nga nekk ci dawla bi nekk ci diine ji xalaaku li xalin waaw da bëgg ma gudd fan bu ngeen gisee ma romb leen fii ngeen baal ma sunu mbokki journaliste yi dem ci xale yi ca biti di tawte ak ñoom dafa am lu ko waral mu laaj interpretation ngeen war koo jël lu tax ma def ko sunu yaakaari tey ak ëllëg nga xam ne mooy malaaz mooy mafza sunu yaakaari tey ak ëllëg nga xam ne mooy malaaz mooy mafza dañu ko jële fii yóbbu ko Gabon mu am fa juróom-ñaari at yu tegal ay weer yoo xamante ni bii daf koy tawte te foofa taw bi daa bari godd ya bari lépp ci kawam mu koy dékku moo taxoon ñu doon barkeelu ci taw bi ndax tey jii la defe woon kaw teef wa ca bureau gouverneur ca Ndar julli fa ñaari rakka ya Baqara ak Imran ñuy taasu ci barke bis bi di taasu ci barke xalifa bi ak ka daan teewa bis ba muy sëriñ Mamor Mouhamadul Mourtada ak waa kuréelu Ndar waa kuréelu ñaari rakk yi ko daan àndal yépp waaw rafet ngir ma wax ci lu tax célébration ñaari rakkay ndar yi dafa njëkk a génne ci làmmeñu Seydina Ousmane ibnu Cheikh Ibrahima Fati moo xam Abdou Khadir Thion ni ko yéen waa ndar ñaari rakk yi ku tedd ki julli woon fii ci bureau gouverneur war ngeen koy màggal saa yu ñëwatee Abdou Khadir Thion ma nga ca dëgg moom a ko nettali te 92 itam ñu jagleeloon ko Seydina Ousmane mu meloon na mu meloon du Baro ngi jàkkaarloog man kenn fàttewu ko fi Misbaax ngi nii kenn fàttewu ko fi 92. kenn fàttewu ko fi bañu ko jaglee Seydina Ousmane nam meloon loolay dox ba tey tey ñoom ñu jot ndigal ci kilifa gi nii jarul ñu koy woote man mi nga xamante ni bii nag ci sama fullay bopp sama fullay bopp mu may fulla joo xam ne ci laay bégee ci moom ma jël sama naissance def ko muy bis bii moo tax barki dem ba léegi ñi nga may yónnee cadeau nu ne nu ne te naissance bi rek taxul li ma dàkk bis bee tax ñu ko ciy sant moom ku tedd kii Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul defe naa ni professeur ñaam mi ngi ci yoon wi faw journaliste yi xaar ko ndax discours bi moo ko waroon a def en français te léegi mu egsi bala ngeen a dem Majey Johnson professeur Johnson moo waroon a def anglais bi pour les anglophones ni mu demee moo tax te fa ñuy sori fale ci Thiès nga xam ne gané aduna àdduna falaa juddoo tey jii fii may wax ak yeen normalement ci le professeur sen warona def rentrée politique ci parti de la vérité ak li ñu koy coordonné loo la région de Thiès waaye du té fofa néna ko sa yu mané bu mu insister ci heure bi waaw ndax fa la ndox ma gën a bare waaye dama ne ko ñun bu doon taw galaas itam dañuy def li ñuy def moo tax ma romb leen fii di leen ko baalu dem ca xale wax leen li ma leen di wax ñëwaat fii ci yéen wax naa leen itam ni leen Ablaye Bodin loolu moo xaw a perturbé mbir yi ni mu demee ndax yaa waroon a doon yow yow laa désigné woon ko modérateur bëggoon xale yitam xam ni. Eh, sa njiit ci sen kanam wa Philharmonie bi dafa feddliku bëgg a fàttali itam la ma ci yow te way ba joxe sa numéro 77 636 26 89 waaw ni lay structure bi la lay coordonné pas ay instrument rek ak i chanson mbaa ay chanteur dedet structure bi ci boppam annaxamat al muqaddasa ma bëgg leena wax ni rek spirituel et temporel tant ndey est la ak bu càmmoñ bu ci ne dafa am appareil am télécommande ñaari com ñaari télécommande yépp mi nga ma téye di leen ko wax yéen journalistes à partir de cette soirée de ce jour le jour de ma naissance man Ahmadou man ku tedd ki Ahmadou la may wooye woowu Modou Kara Ahmadou la may spirituel et temporel ci Bamba fep avec la révolution pacifique bi nga xamné ne ko fi wax barki Dembo ndjay. spirituellement temporellement à de la vérité biñu ñu ne woon gënu ay té ñu koy coordonné dëkk jàmm gën ca Thiès tudd Mohamed Sène di professeur tama ne ko wutal trois cent treize professeurs ngeen nekk le noyau dur ngeen nekk noyau dur parti de la vérité waaw mu nekk euh, benn nouveauté boo xamante ni bii maanaam seen base mooy diwaanu Bamba fépp am ngeen base ba noppi da ngeen di élargir rek ma bëgg ñëpp dalal seen xel

te boo takkook moom te gëm ko lim la yebal ci médecin du bari waaw du mën a bari te jamono yu njëkkee ba médecine développé gul science ba mu développé gul lu ni ñi daan fajo remède ab yonent du gumba ab yonent du lafañ ab yonent du gaana ab yonent du luu ab yonent du lu dafa am xéti tawat yo xamné du dal ku yalla yoni waye ñom sojak si buroog tayelak ak yépp day dalu yonent ndax nit la yonent nit la waye nak dañu ko tan mo tax nak amna tawat yo xamné mom tawat yoyu ma len wax ni feebar bi xew ni ni ni damaa amatul droit wax ci ndax dama cee waxoon ma ne la ma waxoon laa gëm le secret ne se dévoile pas ah. Ablaye du càgge ne loo xam rekk wax ko am médecin ngay ma jàkkaar loolu moom laa yabaloon ci Adama Baro maa ngi bëgg Macky raisonné ko man duma ku ñuy ciil ceelee ma ñëw ma ñëw man duma ku ñuy ciil ceelee na ko Macky raisonné <laughs> man duma ku ñuy ciil ceelee yow yaa fa yow laa fa yabaloon ba mu tiitee ba xaj di doom ja doom ja faatu faatu ga moom la duma du waxantu fayul naar ba xorom waaye nag naar bi daf koo fayul xorom sax faf ndax naar bi xoromu xoromus ku tedd ki la soxla lemu ku tedd ki la soxla suukarus ku tedd ki la soxla soxlawul lemu keneen soxlawul xoromu keneen soxlawul suukaru keneen nañ jël seen suukar seen lem ak seen xorom bàyyi ma ak imaani ku tedd ki ak islaamam ak ihsaanam nag ma fas yéene nekk nag mudd mi nan waaw avec constance waaw ci jamono bu nekk dafa am certain ñu may umpalelu umpalelu rek euh, du ma am naa noonu du ma ne amuma ko waaye ku tedd ki de caw kaana xaq na rudda maka ida la ida ila la ida yaa man habaniya bi moo ko jili ida waaw ku ma moytuwul it sama bopp kel nangul moytu ma te moytu woko moytu len ma te moytuwoo kenn xel kel nangu ko di waaye am nga droit moytu sa bop man damay moytu sama bop mhm. bu ko defee Bamba fépp avec la révolution pacifique moko Hizbul Haq jàmm gëno ay dañuy synchroniser ci kanam dans quelques mois wante professeur ñaa bu ñëwee dina leen ko wax fii commune bu nekk cellule Bamba fépp dina fa am professeur Sène dina leen ko wax fële commune bu nekk cellule parti de la vérité dina fa am waaw loolu kon du ndar <laughs> ni ku nanguwul wuñ la ku nga nangu <laughs> malaaka ku mu nanguloo rek nga nangu ñun dañ ñuy liggéeyloo rek Sëriñ Tuubaa moo moom réew mi moo bindoo ne xadda anqanil yow ma hubbul ahli wal watan xandar kima li zawil anwaari wal fitan moo ko bind réew mi am réewa ma moo bind malaka ni moo bind zimaamul wara ansri la dallahi fi yadi ku yëg ku yëgul moo fi nekk moo moom ñëpp moom moom sa ndey moom moom sa baay bu yëgee ak bu yëgul moom moom sa sëriñ moom sa sëriñu sëriñ bu yëgee ak bu yëgul loolu leer na nañ ngeen baal ma àq te ngeen xaar tuuti rek eh, Mamadou Niang <laughs> ba mu ñëw bu ngeen bëggee poser ay questions itam ngeen poser ko ko dina leen tontu ndax boroomu fit la te boroom xam-xam la jërëjëf jëf